bëggee sama grand bi maa ngi bëggee ñëpp bëggee waa àdduna di bëggee waa kaw surtout waa Kaolack ma fekk si di bëggee si ma jógee ndaangaan sama di bëggee ñëpp daal di leen di xamal que ne seen doom a nekk nii indi maama di présenté wu fii région Kaolack ci 76 kilos yi quoi waaw nekk si préparation bi métti tamit nekk si wàññi poids bu tar billaahi leen di xamal que ne daal ñu ngi daal dekk loxo daal di sàkku ñaan si ñoom ñëpp pour ñu ñaanal waaw nar naa bëri moom mais lépp lépp liggéey la daal lépp mbiru góor la rek hmm, lépp mbiru góor la moom parce que jóge ay quatre-vingt nangam kilos ba ñëw daanu si ay soixante-seize kilo moom dina xaw a métti wàññi bi dina xaw a trop mais lépp lépp si yàlla la daal. mais ndax mos nga dund expérience wàññi poids. man non non bii mooy première fois nag ma koy door rek waa hmm. waaw parce que bi mooy première fois mooy door a ñëw chef de l'État di door a présenté wu nii. waaw maa ngi ci entraînement bu métti surtout fu mu ne nii ku ma xam rek dina xam ne kii moom xëy na mu ngi si wàññi waaw mu ngi si entraînement bu métti billahi parce que maa ngi ci moom depuis boobu léegi nag depuis bi. affaire bu est-ce que ne moo a lekk pour mën a diminuer. na am na surtout kër ga sax même yaay sax waaw sama yaay sax daf ma suivre si yooyu noonu parce que damay bëgg lekk lu bëri sax mu ma noo wàññil parce que fi ngay waaj moo tax. bo sonnoon fi rek bo demee fofu di nga sonu mën nga maîtriser ni ngay léké fi ak ni ngay doxalé fi dal mon quoi même fi ma ñëw fi tamit amna fi sama benn paa bu baax aljuma moom ma taxaw fi taxaw bu taxaw bu baax ah taxaw bu baax ay wax deug fa yalla ñom kay contente ñom rek ñom ñu ngi def seen waré su ñun depuis bu ñëwé ba légui mom ñu ngi def seen waré su ñun mom sant kay moom sant yàlla kay contente ñom rek contente ñom ñoom ñëpp di leen ñaanal jaamu rek léegi nga nar a dugg ci carrière internationale parce que drapeau chef de l'état moo lay yóbbu CEDEAO moo lay yóbbu ligue olympique moo lay yóbbu fépp ci àdduna bi quoi. Hmm. léegi nga entamé beneen carrière bu bees est-ce que yaa ngi ciy xel ak nan nga ci nar liggéey. waaw maa ngi ciy bàyyi xel bu baax baax maa ngi koy bàyyi xel bu baax parce que tey ku nekk rek dangay ñaan yàlla pour nga yegg si fii yëpp ba romb fii tax dem feneen ak feneen ah mais tey bu yàlla dogalee tey ñun xëy na ñun ren jii ñu ñoo ñëw rek mais déwén mën naa ñeneen. waaw dañuy dolli sant yàlla bu baax a baax di sóoraale tamit liy ñëw devant daal. déwén waaw bëgg naa ko. bëgg naa ko de incha allahu rabbi waaw bëgg naa fi trouver résultat yu leer ba gars yi xam ne mooy loolu daal ndax bu déwénee incha allah ñoom ñu jël si ma comme ni ko defee ren jii rek incha allahu rabbi. booy. <laughs> waaw xamante nañ <laughs> waaw xamante nañ bu baax a baax booy nekk waaw waaw xaw naa bëri sax ñu ma jot a laalanteel ci 76 kilos yi l'essentiel daal xamante nañ ñun 76 kilos yi xamante nañ bu baax a baax. <laughs> waaw nañ nekk si waaj waaw nañ nekk si waaj rek nañ nekk si waaj parce que maa ngi ci waaw maa ngi ci moom. gars ah bëgg rek kontaan moom kontaan si ñëpp kontaan si àdduna bi yëpp kontaan surtout waa Kaolack waa Ndangaan bëgg si gars yëpp daal di leen di sàkku ñaan ñoom ñëpp daal bàyyiwuma kenn àdduna bi yëpp waa di sàkku ñaan si ñoom ñëpp ndax ñu ñaan ñu xam ne daal seen doom a ñëw fii tey jii seen doom yi ñoo ay tey ji daal te ñu ngi dekk loxo daal di ñoom ñëpp. looy wax waa Ndior sa mbokk yi foofu. sama mbokk kay moom wax dëgg fa yàlla kontaan ci ñoom rek ñoom moom su ma lay toog fii di wax ci ñoom rek mën naa fanaan ci kër gi. parce que bëgg nañ ma am nañ foo xam ne taxaw nañ ma foofu lu bëree bëree bëree bëree bëgg ci ñoom ñëpp nag kontaan ci ñëpp surtout samay papa yi rawatina laaj njumboor billaahi samay papa yu ndaw yi ñoom ma nga gars yëpp daal bàyyiwuma ke sama limee rek damay juum quoi ak sama booy may àndal ñoom Buuna ñoom Papa Mbom sama gars yëpp daal di bëggee ñëpp bàyyiwuma kenn nag.